الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب سبحانه وتعالى ويرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين بك يغنا بنو سنتي سونو بروم جولي سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yépp ci at mii nga xam ne ci lañu dugg muy atum jullit yi yàlla na nu yàlla dimbali nii mënu maye ren ñu fekk ko ñu fekke wat ko déwén te suñu boroom xiir nu lépp nu jaamoo ko ko di jaale it bu baax a baax a baax bokki jullit yi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ci weer bii nga xam ne ci lañu génn ñiñ ci xam ak ñiñ ci xamut ñëpp yal na leen yàlla yërëm te def ci xol jullit yépp muñ te yàlla wutu leen ñoom ñépp ci njaboot gi di fàttali na ñu ngi ci weeru muharram tomb bi ñu ngi koy tënk ci nit ki su gëm yàlla matee saa su nekk ndimbalul suñu borom wàcc na ba jekk ngir di wàllu ji ko yàlla noonu ko yàlla defal muy weer wu mag woo xam ne jullit yépp ci ay jamono daje woon nañ di seet ana waxtu wu ñuy jàpp di ca fàttaliku seeni at di ci lim seeni at waaye weeru muharram lañ tànn la tax ñu tànn ko la ca nekk ci ay nettali bari na waaye lu ca mën a xew daal suñu boroom mas na caa wallu ab jaamam su ma ko mënee wax sax ay jaamam yu bari suñu boroom wax ci alxuraan ne at mi bu ñu dee lim ay weeram fukki weer ak yaar lañ cay lim am na ca nag yéenti weer yoo xam ne moom kenn du leen laal kenn du ca damm bant xat wuru ca damm moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne xamu leen ne jamono ji day wëndeelu mi ko yàlla binde woon laata may ñëw laata ña ma jiite woon di ñëw ak buñ fi nekk tut ba mu ko bindé ba légui am at fukki wé rek yar la ak nu nit mëna wañé waye waaye ci gëna ñor tay moy atum julit yi néna amna ci yent wër yo xamné ñom ño tégalo tegaloo kenn waru caa damm bant muy dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram loolu qaadati mooy weeru diggiw tabaski weer wi nga xam ne bu weesoo tabaski gee ci topp ak weeru tabaski bi ci boppam ak weer wi nga xam ne ci la nekk te ñu di ca reer reer itam ya daan am na waleen ñeenteel ñu koy wax moom nag fa mu nekk ak tam xarit juróomi weer yu teg la waaye amu ca wenn woo xam ne nit war na caa damm bant kon bokk na ci weer yi nga xam ne suñu boroom moko tudde bolé ko ci al ashhurul hurum mu am nak may go xamné ay moromi wéram ay woromam amuñu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne loolu mi ngi ci muslim ne wér wi gën ku ca wor gannaaw ramadan gannaaw wéru koor wi ku ca wor ay bis mooy weeru tam xarit kon na ko ñépp baal xel bu dee fii fii dëkk bi nag ci jumaay Tuubaa ju mag ji ñaare danañu faral di fàttali bis yi nga xam ne sopp nañ ko ko woor lool waaye ñaare daañu ko wax ci weer wi nga xam ne ci la ñu nekk ci fan yi ci kanam tuuti muy weer woo xam ne nag yàlla yàgg na cee wàllu dimbali ca ñi nga xam ne dañ ko fab teg ko fañ ko war a teg dinañ ci tuddu melni misal mo xamni alquran ne ñu ko netti fam tambale ba fam yam moy ndimbal li nga xamni suñu borom yoron nako ko yonentam ba wax sayidina musa te bokk yi gëm ne sayidina musa yonentam suñu borom la subhanahu wa taala ci pas-pasub jullit la bokk te sayidina musa mom yonent yàlla tuddu ci alquran tan ca tànnaat da ko ta bolé waye ki ëpp luñ ko tudd di nettali ay jaar-jaaram ci alxuraan ca la bokk waaye lañuy ñuy tudd ci moom mooy pas-pasam bu dëgër ba ak bàyyee gam bàyyee woon yàlla boppam ak xam warteef digganteem ak ak njabootam xam warteef digganteem ak njabootam la muy doon néew néew doole yàlla da ko dajeeloon ak buur bu bew boo xam ne fa mbewte yam fa la tàmbalee di dem ndax mbewte ci kaw suuf miiw na nit àgg ca bay wax ne moom mooy yàlla léegi yàlla nu ci nit def na fi mbewte gu nekk wax ko fi waaye waaye néew na mu àgg nag fakk ci yàlla Muusa dajeeloon alayhi salaam kam dajeeloon xëy na bis ni moom mooy yàlla ma ko tàmbalee ci آه، أليس لي ملك مصر يا قوم أليس لي ملك مصر قنا دمام مصر مصر جنا تلا القرآن يام ناس يام دان أجدخ يبدأ وتبيرم يب نينا موم مولن موم موني فلكو فك تفلكو باي تي باي نك كيب كو خامني اندوتك موم تيب جس جس amna na ñoo xam dañ leena a yongu guddi bett leen faagaagal leen amna na ñoo xam dañ leena yóbbu ci pénc ma def leen fa lañuy def ñëpp gis amna na ñoo xam ne dañ leena yóbbu ci dig àll bi ci àll bi mel noonu ku ko xam àll ba legi ci bàyyi leen fa ak tuuti ndox fekk dañoo tak seeni beut xamuñu sow lañ jëm xamuñu penku lañ jëmal ba yag lo doyatu ko nak mu ne mom dal moy yàlla legi da jëk wax ne ma alimtu lakum ya ayyuhal mala ما علمت لكم من إله غيري إله إله لنك أمنا نانا مو خموت كان كوني وخ جن إله تي آل هاي كدول موم بياك مو وخ القرآن وخ فقال أنا ربكم الأعلى لكنك نك مالين موم مالين بند مالين موم فوفو ني نكت لي نانا بكو شيطان ديغي مو دافا سامبو خيلم ني لي نك اوبنا موم ilahun june mana na am wutu nañ ko ci ay jamono waye rabb nak mom kenn la rabbu samawati wal ard waye nak yalla yone ci mom ko xamne ne da ko wajal wajal ko segg ko seggat ko tan ko tanat ko ngir lan mu jele fa pas-pas bobé ak wax ju jojé ak yemel ya ni mom te waxuñu ko ci tënk fa mu jaar ci ak ndaw ba ba muy xëy xëy na léegi ngi toll ni ñépp lu gudd la lépp a ngi ci alxuraan waaye dañ ciy jàpp fa mu mujje ak moom fa mu mujje ak moom mooy yàlla def ne Muusa gàddaa yàlla natt bu nekk jaar na fa natt bu nekk xar baax yu nekk ak i kawtéef yu nekk wane na ko waaye nag lii xew ci jamono rek mooy am am na ñoo xam ne dañuy dem ba xam ne buur juum na waaye nag ya am ci buur day tax duñ ko mën a wax dañ naan fu mu joxañ rek bala moo bànk waaw waaye nag musiba buy ñëw du yem ci bopp boroom ba yàlla ne Seydina Muusa gàddaayal ak ku nangoo dem tegu ca baat waaw xëy naa ila Muusa an asri bi ibaadi rañaan nit ba nit ñi ne baasin yàlla ne tek mu jóg ci digg guddi xamutoon fu mu jëm waye bam ko ne fadrib lahum tariqan fi lbaxri yabasan la takhafu darakan wala takhsha dañu dox tuti rek yam ci géej ji gaay xëy gisuñu leen ñu ne nañ leen dabi bañ leen di dab ba gannaaw ñoom dañuy dox amuñu benn jumtuwaay bu xereñ bu mën a xëy sànku ji dox lañ doon def ak a war te ñu néew a waral ba ñuy ñëw ba ne xegg ci géej gi seen ña leen di dab si ak seeni gànnaay ñu ne ko waaw lii lu ciy pexe inna la mudrakun danañ ñu dab de te bu ñu dabee rek musiba am فلما تراءى الجمعان قال ashaabu Muusa inna la mudrakun ndax géej gaa ngi ni ci seen kanam noon baa ngi ci seen ginnaaw waaye ba leen Seydina Muusa di tontu daf leen tontu ci làmmiñu ku gëm yàlla te wóolu ko te doyloo ko te bàyyee ko boppam daf ne kallaa inna ma'i rabbi sayahdin yàlla ngi ànd ak man ديرت ني لا ني fexe دو سوتي waaye فضرب لهم tariqan في البحر yabasan لا تخاف ذلك ولا تخشع سو خول خول با xam ني غنا gën a jege nga yor muy aw yat dor ko ci géej gi rek mu xamne yat wi mu yor ci garab la jóge mbindeefum suñu boroma mo ci bopp mbindeefum suñu boroma géej gi mbindeefum suñu boroma kenn ku ci nek ndigal lay deg ndax suuf si ci la géej gi taxaw te suuf si yàlla mas naa jox ndigal mas na ko jox ndigal ne ko wannal diw qaaruun fa xasaf naa bihi wa bi daarihi al ard mu wan na ko ba kenn tegatu ko bët ak alalam daal di newaat képp ne càll sànni nañ nit ci sawara yit fekk pas-pas dëgër lool mu ne ko yaa naaru kuuni bardan wa على ابراهيم كون بو دنا لول ليب موم فلا كو فك لول جاخلوكو لوين كو واخ مو ديفكو ان ادرب بعثاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بام كو تي ني تياو دا فا ملني بون يي ني خام نون لي داو جيم ني ندخ ماي داو جيم ني ندخ ماي داو جيم ني سوف سينا دانغ دانغارا مو جال di wàññi nit ñi ba ke mujjé jall mu ne yalla def na la nga waxoon yalla ne ko demal li ci des mako ko dese seen yoon yu mu talli ak rawu kay yu xereñ ta gaaw daw ba seen digënté bo sànnee aw xéer sax mu dal leen yalla joxaat ndox ndigal mu dajawaat kon bu des na ci jang ne ku wéeru fa mu war a wéeru di déglu ka mu war a déglu te xam lii nekk ci war téef du ragal dara ba ko yàlla ne rañaañal rañaanal baat topp ca waaye xamutoon fu mu jëm lu may rañaanal rek ndax yàlla moom du la jógloo te te xamut foo jëm waaye bokk yi bu ngëm matee sëkk saa su nekk ndimbalu suñu borom taxaw na temm ngir yoor ko yooru ca kookee mu am maxraj wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqu min xaysu la yaxtasib kon ci weeru muharram wax nañu ne ci la xewe woon kon ku ca àgg fekke ko bu fekkee ci këram la nekk na seetaat la sidina sidina musa dundoon ak njabootam bu mu dem te gisu leen bu mu lekk te gisu leen bu mu tëju bu mu fartu te gisu leen ku mu gisutut def la Serigne Saliou waxoon dem xool ba xam la ko tee ñëw su dëppee mu dem dabe ko waaye ku yor ab dëkk noona njàmbat ya dëkk bay jàmbat daf koo war di déglu di ko dégg di ca saafara lam man lam ca mënut mu wax ko ñam ko war a wax waaye ku yor lu ëpp dëkkit nga xam ne daa ëmb ay dëkk dëkkaane loola war na ko ca waaye ku yorumu réew it loola war na ko ca war naa fexe ñett ñi ma wax ñëpp ba ñeent kenn ku ci nekk war naa fexe ba waa këram wóolu ko ba lu mu leen wax ñu gëm ko ñu wóolu ko ba lu mu leen wax ñu gëm ko la koy waral nag mooy moom ci boppam mu xam fa muy teg tànkam waaye bokk yi ku bew mbewte mën naa dal nit ci këram ba kenn du ko tontu ku wax mu ne duma sama moroom waaye mën naa dal boroomu dëkk maa moom dëkk bi maa dëkk bi ak maa kër gi mbewte mënu koo weesu bu moomee kër gi fa mu cay fanaan mutul sax ñaari meetar la ca des lépp lu kër gi yaatu yaatu xamul lu ca nekk am na sax luy fanaan ak nit ñi seen néeg mel ni sa ndax am na gëstukat bu wax ne gëstu na ba xam ne ndekketu yoo li muy dunde mooy bu nit ki nelawee ba ŋa yuutam yooyu lay mar bokk yi kay fëggu nan may boroom kër gi du ko yëg sakkantuma nag lay xew ca xuruqaan ya kon may borom kër gi mbewtu mënu ko weesu maa moom dëkk bi it waxaale wuñ ko gannaaw mënut a xam ne ci kër gi néeg bi sax laay wax fa laa waroon tàmbalee sakkantuma ak ab dëkk nam toll sakkantuma nag am réew la ma wax moo fay am loolu moom mbewtu mënu koo weesu waaye yàlla na yàlla musal nag ba àgg ci mbewt ak ka dajawoon ak Muusaa ndax kat fa mu mujjee moom ndoxum kese la da ngay dégg noon diw fay mujje moom ndox du fa nekk waaye moom ndox ko mujje wa jawazna bi bani israila al bahra fa atbaahum firaun wa junuduhu bagyan wa adwa ñu jéggil ña àndoon ak Seydina Muusa bañ jeex takk xar desut bëy desut ganaar desut moom nag mu seen yoon yi mu tàlli mu defe ne noona la xataa ida adrakahu al gharaqu ba mu demee ba xam ne cëgg di sa ci guy ndox maa ngi ko wër fu nekk fas yu moroon fas yu taxaw jéem naa taxaw jéem a taxaw ba yàgg ndox mi di yéeg mu bëgg a dellu gannaaw qaala amantu annahu laa ilaha mel ni daa am lu fel gémmiñ nga bu ne woon laa ilaha illallah rek mën naa mucc waaye nangu wut na yàlla mooy def nangu wut na yàlla moom moom yëngu wut na yàlla mooy dogal dana illa alladi amanat bi banu israil maa ngi seereel ñépp ne gëm naa ne amul yàlla judul ka nga xam ne moom la waa banu israil gëm nu tudd waaye rëy na koo wax ndax bewte wa ana min al muslimin ala ana waqad asayta qablu wa kunta min ko weesu na waaye nag danaa la fi def kéemaan koo xam ne kenn dutu ko fàtte fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya wa inna kathiran min annaasi an ayatina la danañ ko fi bàyyi ba ay maas yi maas fekk ko di ko nett leen te naan kii la woon wala kii ci ñooña la bokkoon dara du ci sikk kon fallaahu xayrun xifdan bu ko defee ku xamoon kon ne day mujj wàññi ko rek bu cëgg de ci guy lii tane mooy mu gaaw ca jëm ndax kat amna fo xamne tuub amu fa jariñ fof tuub amu fa jariñ motax kep ku yor keur su weeru muharram ñewé ginaaw xew-xew bi ci la xewon ak yu bare bare bare bare mom la suñu bi wax ci ben téeréem man na ben wa fihi falq bahrihi li musa wa hakada wulida fihi isa ci weeru muharram kon ku yor keur bu ciow la bare ba bari wala ñam ya ne gàññ fu mu dugg mu sedd guyi bu mu tax mu fëgg mbaggam ne mana sama këram kenn du ma tontu lu mu neexut du fi amee loolu mbewta mënu koo weesu ka yor dëkk ba kër googa nekk noona waaye ka leen ëmb ñoom ñëpp noona waaye ka yor réew ma noona waaye nag léeg-léeg nit log ba du mën a wax lu set ba ñuy ànd ak moom ci maa alimtu lakum min ilahin gayri yi ñu ne ko wax nga dëgg de daa ña doon wax wa nga dëgg fekk mënutuñu mënuñoo wax baax ndax dañoo log ku log loolu mel ni ab màngo mënuta wax lu set fu mu joxañ rek ñu ne falaa léeg-léeg mu ne tey dafa tàng ñu ne ko tey moom kenn mësu koo gis dafa tàng mu ne waaye moo tax ne démb de ñu ne ko moo tax ne démb moom démb dama la xawoon yaram mu ne nag man aw tàngoor moo gën ci man ñu ne ko waaw yow tàngoor a gën ci yow lu mu wax ñu ne noonu la loolu nag bokk yi mooy jëm ci yoonu mbewte lu diw wax dëgg lu muy bëgg wax noonu la diw du juum bu weer xam xarit ñëwee war si ne ko jàngat ci dundu Seydina Muusa ak Firaawun ndax yu bare bari yu bare bari wala fi dañuy wax ne garab gi nga xam ne mooy doon garabu pénc ngorkaan du ko gis ba di ko dagg ak ganeem àdduna dama jàll lu bari waaye ku seet ci alquran dana xamne naka jek kurel bi ànd ak yàlla ñu néew lañuy doon waye nak suñu jappé tëra bàyyi ku ne dana leen bëgg fekk ci amna ño xamne dana ne ko wax amna ño xamne duñ ko wax ñun ñi nga xamne xass nañ ko wax ban yàlla lañ àndal te suñu wëru wolu nañ ko nañ ca yam te baña faale leneen بوكي حديث بيونت بي صلى الله عليه وسلم مخنا يوم خلق الله السماوات والارض بس با يالا بيند اسمانك سوف اك لي نيكي سين ديغنت لب نون كي ني يالا بيند تي ديغنت اسمانك سوف لاني بوك نيوال في دوندو نون ني في دوندو نك كو تي گم يالا گم يالا كو راغال بو وير اموت لويتي سو خيول خيس خي گيس وا دك بب فاتو يت وتا تخ nga taxaw ci sax jaamu yalla wërta tax nga bàyyi sa pas-pas ndax kat bokk yi lu mën a taxaw ci adduna bi lekk ak naan bokk ci lu mën a taxaw lekk naan bokk gu ci fàttali nañ ko ay yoon aw nit danañ am xew-xew ci oto bañ duggoon ñi mucc ñi tëdd yàlla yàlla yërëm ñi seen bakkan jaare ci woto yépp waaye bu ñuy yóbbu ñañ man ñañ war a walla fu ñu leen dugalaat ci oto lañ leen dugalaat waaye lay léeg ab dëkk tàkk ba jeex tàkk bañ for lañ mën a for rawale ñañ mën a rawale waaye da ngay dégg ñu ne jigéen ju ne xaaral ma ñëw taali reer man te sawara bi muy nar a taali lii di waa dëkk li dal waa dëkk bi moo leen ko teg waaye la koy waral mooy lekk ak naan daa mënta taxaw te lekk ak naan ci jullit ab jullit daf koy lekk naan ko ngir jaamoo ko yàlla moo tax dara wut a tiital ab jullit lu mu war a def ci jaamu yàlla am bu jotee bu jotee moom tam man amug wéram sàtte yi daje ci moom lu nar dox digganteem ak jaamu yàlla gën a falang loola kem na ba ba ko loola di falang yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina